laas ne na compliqué na lool ci Sénégal Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu Sénégal nee na en tout cas li am ba des sall mooy Égypte gagné nañu waaye nag mën nañoo dëpp li nga xam ne mooy carte gi maanaam mën nañoo gagné bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy waa Égypte ci Dakaru ci stade Maître Abdoulaye Wade nee ma remontada yéen i kaay gi di bés bi nee na en tout cas li am ba des sall na leen leer na ñoo ngi leen di xaar fii nga xam ne mooy Dakar yéen i kaay gi ñu xëy fekk fa Aliou nee na nag sunu gaynde yi maanaam football nañ bu baax a baax waaye nag dafa am lenn loo xam ne moo des force maanaam efficacité ndax nag gis nañ ne équipe nationale ba Sénégal match bi doon dox seen diggante ak Égypte bëri nañ ay occasion yoo xam ne Sénégal waroon nañ koo mën a dugal nag ndax bëri woon nañ ay occasion lool yéen a kaay gii di enquête nee na Sénégal dos au ñi nga xam ne ñooy waa Égypte ñoom gagné nañ nag match bi nga xam ne daal moom la ñu doon amal ci seenub dëkk te nag Égypte na leen leer ne bu ñëwee fii nga xam ne mooy Ndakaaru maanaam ci défense de fer la yore yéen a kaay gii di bi nga xam ne nag moo war a dox diggante Sénégal ak Égypte talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal Sénégal am na chance yëpp ngir nag qualifié ci mondial 2022 Carlos Queiroz mi nga xam ne mooy entraîneur bu Égypte daan nay wax na match bi nag métti na ci ñaari équipe yëpp la ko waral nag bokk na ci ndax ñaari équipe yëpp kenn ku nekk dafa bëgg a dem mondial c'est normal Idrissa Gana Gueye ak ki nga xam ne mooy Saliou Cissé dese nañoo dox nag ci match bi Sadio Mané ne na gars yi dañu ko neutraliser Abdou a blessé a kaay gi di Dakar Times ne sénégalais ci boppam moo tàbbi ci ndëgg sërëx gi nga xam ne moom la ko Égypte nag lalaloona waaye nag bii bi nga xam ne Sénégal teel na koo jël jëla mu nekk contre son camp loole nag bokk na ci li nga xam ne yàqal na bu baax a baax équipe bi beneen bi nag mooy Abdou Diallo mi nga xam ne tamit dafa teel a blessé ba tey ci biir journal bi di Dakar Times nee na ñi nga xam ne ñooy waa Égypte football bi nga xam ne moom lañ doon football maanaam teguñu ko fenn ndax nag tricherie la nag waa Égypte doon defa ba pare nag di rey temps rek jël pression bi nag teg ko ci kaw ki nga xam ne mooy arbitre bi yéen a kaay di la nee na Sénégal nag ñàkk na nag maanaam pàcc bu njëkk bi yéen a kaay gi di Vox Populi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Égypte jël nañu nag seen revanche ci Sénégal yéen a kaay gi di Stades nee na démb Tunisie gagné na Mali benn bal ci dara ñi nga xam ne nag ñooy waa Tunisie jamono ji seen benn tànk ma nga ca Qatar ñi nga xam ne tamit ñooy waa Algérie démb la ñoo dem Cameroun fekk leen ca seen biirub dëkk def leen benn bal ci dara Maroc ak RDC ñoom dañoo témboo témba yéen a gi di enquête ñu koy fekk fa maître Abdoulaye Tina moom nag daat nay jokkoo daan nay saisir lu jëm ci arrêté bi nga xam ne ministre de l'intérieur génne na ko ci lu jëm ci wàllum parrainage bi yéen kaay gi de la sax xëy dañu xibaar naan ñu dafa am benn étudiante ca université Gaston Berger bu tudd Seynabou Diallo boo xam ne dañu ko fekk mu ñàkk bakkanam ci benn village boo xam ne soriwul dara université boobee journal bi nee na àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn la étudiante boobee di Seynabou Diallo réeroon ñu koy seeta waaye nag bañ ko gisee gis nañ ne dafa ñàkk bakkanam yéen kaay gi di libération nee na nag ubbi nañu ci ab enquête premier élément enquête bi li nga xam moom la wane mooy fitna joo xam ne teg nañ ko ko fitna juñ ko teg daal feeñ na loola ci aw yaramama ñi nga xam ne nag ñooy enquêteurs yi li ñu njort mooy nag dañu ko doon jéem a violer ba nag far mu mujjee saa ñàkk bakkanam yéen a kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ay avocat ma ñoom nag altine ji nga xam ne moom la ñu dëg ma la ñu dem nag sa tribunal ba gisante ak doyen des juges waxtaan ak mooma ngir nag ñu mën a nag wutal Ousmane Sonko ab bis boo xam ne danañu ko mën a déglu Société nationale leen doon may seen revue de presse